nekk sa yëpp dana président yebal kon euh, ñoo ngi am mbégte monsieur le préfet di la bu baax di jiital ay cant ak i ngërëm ndax ni nga waxee dégg nañ ko bu baax ku la dégg sa wax xam ni waxu xol ak pas-pas moom nga waxe noonu ngeen jëfe ak ñun itam depuis daaw ak lu ko jiitu daaw ñu màggal màggal boo xam ni pas-pas bi ngeen ci feeñal ak yéene ji dafa jéggi dayoo ba sëriñ bi amee ko ni ko bëggee kon nag loolu nga xam ne amoon nañ ko daal ci lañ sukkandiku dem ñëw fi jaxal secrétaire général communal bi ak monsieur Tine sama secrétaire nga xam ne mooy secrétaire màggal gi ak mboolem njaboot gi ñu tënk li ñu tënk ci ay kayit mën naa wax ni li nga wax sàng CRD bi moom mën nañoo jóg sax dem ndax ginnaaw tëgg nañ ko ci ay kayit nga wax ne li ñu defoon daaw fas nañoo yéene def lu ko ëpp ci kattanu yàlla loolu rek doy na sëkk waaye liñ ci tënk rek ci gàttal dañ ko tënkoon ci incha allahu màggal gi dañ ci fàttaliku cheikh Mouhamadul Amin ibnu Khadimu Rasul bi mu gënee àddina mi ngi àddina Touba ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñuy wax jumaatul ula moo tax ñu koy tudd màggalu jumaatul ula bi mu gënee àddina ku tedd ki dafa woowoon ñi nga xam ne dañoo jaayanteeg moom fii ci Mbàkke Kajoor ñu toll woon ci ñeent fukki góor ni leen li ngeen doon wut ci seen borom lépp gan gi ñëw indil na leen ko bis boobu la ñuy fàttaliku ndax ndimbal la ci nekk ak tawféex ak bis li mu nekk bisu faj aajo ren nag incha allah xam ngeen ni at mi 2000 bi am nañ ci ñaari màggal màggal bi mois de janvier amoon nañ ci màggal incha allah bii ci mois de décembre dañ ci am màggal xëy na. comme bisi tubaab yi dafa ëpp fukki fan ak benn ci bisi weeru olof yi moo waral loolu kon dañ ci am ñaari màggal incha allah le 22 jàpp le ko ci am waaye li ñu gën a jàpp mooy le 22 allah léegi li ñu tënk monsieur le préfet moo di ci wàllu kaaraange dañoo jëkkee ci gendarmerie nationale d'abord ñu sant leen ñoom ci seen taxawaay ak seen Pastef ndax ñoom aw nit lañu ñoo xam ni kenn du leen jàngal ni ñuy sécuriser ba bax ba tax na moo tax. li ñu defoon daaw mu amal solo lool accident yi néew sàcc gi néew li ko waral mooy seen taxawaay bu am solo léegi li ñuy wax rek mooy sàkku ci ñoom barrières yi ñu amoon ak yokk éléments yi parking bi nga xam defoon nañ ko su mag yi jubsee incha allahu ñu ñëw ni ñu ñëwee woon ànd ak comité bi ñu xool barab bi nga xam ni moo gën ci ñu def fa parking bi ñu def ko fa loolu daal la ñuy sàkku ci gendarmerie nationale di sàkkuwaale ci yow monsieur le préfet. nga jottali kilifa yi brigade bi nga xam ne moo nekk Mbacké Kajoor muy brigade bu am solo nekk diggante région de Thiès ak Diourbel ak Louga nga xam ne brigade frontalière la loolu ñuy sàkku àgg na bu yàgg suñ ko mënee ubbi ñu ubbi ko ci magal bi dina nekk am lu am solo ci gox bi waaw loolu la ñu tënkoon ci ñi nga xam ni mooy sécurité bi ci wàllu gendarmerie sapeur pompier ñoom itam daaw jóge daar mu fi ñëw liggéey liggéey fi liggéey bu am solo ki ko jiite woon am solo loolu moom it ak éléments yi taxaw fi daaw dinañ fexe rek ba am lu toll ci ñett ba juróomi ambulance ndax bu ñu xoolee Mbacke Kajoor ak Touba Kër Ngànna ak ak Darou Darou Darou Moxti ak Darou Manaan ba Touba Rufuk yi ko wër ambulance yi fa yëpp dañ koy mobiliser incha allah teg ko ci seen loxo ñoom itam bu ñu ñëwee fi ñu nekkoon daaw ci hôpital bi parewaat nañ loolu. incha allahu ñu fas yéene fa nekk ànd ak ñoom ci lépp ba ñu màggal màggal bu am solo bi ko ñetteel mooy wàllu courant bi tamuy Senelec ñoom it ñu gërëm leen sant leen ci seen taxawaay ndax saa su màggal gi ñëwee dañuy ñëw ñëw def entretien xool làmp yu fi lakk ñu changé ko poto yu fi lakk ñu changé ko yu fi damm ñu changé ko daaw ñëw nañ fi li muy xat-xat am nañ ay extension yu ñu sàkkoon ci ñoom defar nañ ko na gën a gaawee loolu ñoom itam ñu sant leen ci gërëm leen ci waat ci ñoom loolu am na fi ay kër yu bees yoo xam ne su fekkee di mën nañu fa am station avant màggal ñu defal ñu ko ak ay demande euh, provisoire yoo xam ne dinañ ko demande dinañ ko dinañ ko soxla soxla nañ juróom-ñaar fukki làmp 75 ampoule yoo xam ne dafa dafa dafa lakk am na 5 kilomètres yu ñu demandé woon ci wàllu extension yi loolu yaakaar na maire de la commune moo ko bind demandé ko Euh, waaye ñi ngi koy ñi ngi koy dugal ci biir euh, liggéey bi ci wàllu communication bi Sonatel ñoom itam am na lu am solo luñ ñu defoon daaw ndax joxoon nañu ay crédit ñu séddale ko mboolem ñi nga xam ne ay portable te bokk ci comité d'organisation bi lu tolloon ci 200000 wàcce woon nañu fa DS ADSL ñëw def entretien ñoom itam ñuy sàkkuwaat ci ñoom loolu wàllu santé bi ñoom itam dañ leen di sant di leen gërëm ndax ministère de la santé depuis ay at yu bëri saa su màggal gi jub si danañ leen bind leetar sàkku ci ñoom lu toll ci ay médicament lu toll ci juróomi million mosul tardé moom it su màggal gisee juróomi fa daanaka wala ñeent danañ fekk ni loolu lépp yàngu na ñu sant leen ci sàkkuwaat loolu ci ñoom dañu bëggoon nag li ñuy wax ay poste avancé ndax màggal gi mi ngi yokk yokk koo xam ni jéggi na dayoo euh, ñu bëggoon fu mel ni ngi gis Bamba suñ fa mënee am benn poste avancé ñu def ko fa fu mel ni kër Serigne Lamine euh, mu sëñ maam Thierno wàllu yu Kajoor yi suñu fa mënee def benn poste avancé def ko fa fu mel ni kër Serigne Abdou Aziz Bara suñu fa mënee def poste benn poste santé def ko fa suñu diggante sama kër ak kër Serigne Bassirou Magal Lo su ma nee am benn ñu def ko fa euh, kër Serigne Cheikh Kajoor su ma nee am benn post avancé itam ñu def ko fa ak Mbàkke gu mag ci kër xalif sëñ Moustapha mi ngi nekk foofu incha allahu maanaam hôpitalu Matlaboul Fawzeyni ak hôpitalu Ndaamaatu ñoom daan nañ yónnee ay ay ay ay ay ay ñu ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi noonu lañ ko sàkkwaate ci ñoom yaakaar naa danañ ko def incha ak Daaru Muxti itam ñoom it seen taxawaay rafet lool médecin district sanitaire bu Daaru Muxti ñu koy sant ko gërëm eh, ci taxawaayam ak mat gi nga xam ne ngi koy taxaw ci wetu euh, médecin chef bu euh, district euh, bu bu Mbacke Kadior protection civile ñooñu ci dàpp mi ngi aju ci ministère ñu sàkk ci ñoom ay tant ak i ñu ko mënee may ndax fii xam ngeen ni néeg yi ñaare de du doy am suñu amee ay tànt nag danañ dimbali bu baax a baax ci wàllu dalu gan yi wàllu waa Croix Rouge itam ñu sant leen seen taxawaay ñoom itam dañoo mu takku takkuwaay bu am solo daaw taxaw fi taxawaay bu mat sëkk ci biir kër sëriñ sëpp foo xam ne mbooloo ña ngi koy daje ak mbedd mi foo wër ba gis leen ñoom it ñu sàkkuwaat ci ñoom loolee eh, bu ko juróomeel mooy service d'hygiène ñoom itam ñi ngi def seen liggéey liggéey bu rafet ndax su màggal gi ñëwee bu ñu defee set setal bi danañ ñëw ànd ak ñun ci set setal bi après ñu pomp kër yëpp ndax saa suñ ñëwee ñun dañ dañoo am habitude di wax monsieur le préfet fii amul kër sëriñ amul këru bi ñëpp ay bi ay nit ñoo fa dëkk dañuy sàkku ci ñoom ñu pompe kër yëpp noonu lañ koy defee amuñu kër gu ñuy jël amuñu kër gu ñuy bàyyi fépp lañ maase pomp ko ci guddi yi ñu pour def saupoudrage ba àgg daaru Marnaan loolu itam ñi leen ci sant di sàkkuwaat ci ñoom loolu ñu continuer ko incha allah sëñ Barla dina ci ñëw ci kanam maanaam bis bi nga xam ne dañuy def set setal mooy le 16 décembre. 16 décembre tombe rek ay vendredi nga dañuy soxla mu ñëw ci indi ay équipe ak yu mel noonu yëpp ànd ak commune sëñ Baralaat bi nga xam ni moo yore lépp lu jëm ci wàllu set setal ñu ngi ko jàpp incha allahu le 16 décembre muy vendredi élevage. ñoom itam ñu leen di sant di leen gërëm waaye gis nañ leen bu baax seen taxawaay ñoom itam waaye li ñu daan wax rek moom la ñuy waxaat waaw ñaare dañ daan kii rek euh, xaj yi ñu daan rey ñun suñu yaram ak suñu yërmaande moo ñu mayul ñu koy rey damaa la gi benn fan rek mu jàll léegi nag yéen a xam seen liggéey moom lu ngeen ko mën defee ñu ànd ci yéen defal leen ko waaye suñu yërmaande moom mayuñu ñu kii ay faral ay xar xaj waaye li ci am mooy Eh, bis bi su ñëwee ak li ko juru daral gi ñu fiy jaay ngeen ñëw saytu ànd ak ñun ni ngeen ko daan def duñu leen ko jàngal ñu ngi leen ci sant bu baax di yóbbu ay cant ci Idi Faye yëpp ak euh, chef département bi yëpp wax wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na ñu leen koy seedeel hydraulique ñoom itam wax dëgg yàlla dañ leen di sant ñaar rek la ñuy sàkku ci ñoom dañ ay fukki secteur na lañ daan sàkku su ma nee amaat daaw indi woon nañ ko waaye manqué woon na ñett yaakaar na indi woon nañ ñu ay carburant su ma nee yokk ñu jël bâche à eau yi su ma nee yokk ñu jël li ñuy ñaan foofu ci chauffeur yi dañuy bëgg ci ñoom kuy ñëw ngir yàlla ñu may ñu duy ndox indaale ko ndax boo leen waxee ñu ne def oto bi dafay diis li mu jël ci carburant dafay bari waaye loolu layu chauffeur rek la suñu mënee communiquer ak ñoom ñu xam leen même bu ñu leen di fay di leen fay eh, la ñu war a roote foofa wala lay dolli ko ci carburant bi ñu root indaale moo gën a noppali ci ñun gën a noppali ci ñoom loolu rek la ñuy jooy ci ñoom waaye sant nañ bu baax ci loolu léegi am na benn dëkk bu nekk fii dëkku sëñ Baara la bu ñuy wax Daaru Naayim. Daaru Naayim Daaru Naayim soriwul ci euh, commune bi la bokk ñaare ñaari parti la benn bi fii la bokk benn bi ci commune benn commune waaye ñoom amuñu ndox ñu bëggoon forage bii nga xam dañu ko def xam naan mu bees bi ba am ndox mu neex mi suñ mënee am extension mu dem foofu ay 2 kilomètres rek la ñu defal leen ko ñu koy dugalaale ci affaire hydraulique bi euh, eaux et forêt ñoom itam seen dara musul tardé ñu leen di sant ci lépp lu ñu sàkk ci ñoom. seen kilifa colonel Mbaye yëpp dafay ñëw na mu gën a teelee waaye ñu leen di ñu leen di ñaan itam ngeen a yorom yoromal seen loxo ci eh, ñi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si indi ay mat wala ñu indaale ay ay ay lal ay armoire yooyu ñu leen di yombale rek ñu mën fee dugg waaye alhamdulilah sant nañu bu baax gërëm leen ci seen taxawaay bu baax a baax a baax assainissement ONAS ndax ni ñu ko daan defee Fall moom wax dëgg yàlla moo ñuy soññ sax oto yi du tardé c'est une Touba mobile moom itam ñu ngi sant bu baax am mbégte ci loolu di sàkku ñu yokk loolu rek UGC moom itam wax naa ko ñu sàkku ci ñoom ñu jàpp leen ci affaire set setal bi yaakaar naa ni monsieur le préfet loolu mooy li nga xam ni tënkoon nañ ko ci ay point ba ci des dama ko tàyyewoon bind mooy sécurité alimentaire ndax mën naa ni depuis euh, ay at a ngi nii mm-hmm. ko te dañ ñu koy dig ba dernière minute ñu bañ koo indi loolu dañu comprendre jamono moom metti waaye daal ah, ci ci ci ci tënk monsieur le préfet loolu mooy li nga xam ni tënk nañu ko ak njaboot gi ñu sant la ci turu sëñ Moustapha gërëm la ci yéene ji ak taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ci Mbàkke Kajoor ci màggal gi am ko ci njabootu Cheikh Mouhamadul Amin Baara jot leen nuyoo suñu kilifa bopp muy sëriñ Mor Amadou Makhtar mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Xudoos ndax bu yëlif Daaru Xudoos mooy yëlif muy mbind benn kër la naka noonu ki nga xam ne mooy suñu lépp di suñu yaakaar nga xam ne lépp moo ko moom mu Cheikh Mouhamadou taxaw ndax sëñ Moustapha dem na fa barki dem waxtaan ak ñoom bañ jox ko ndigal bañ fa demee dem loolu la ñu wax kon loola ñi leen koy jottali di la jottali ay cant ci say kilifa gouverneur ministre de l'intérieur ba ci premier ministre ba ci président Macky Sall cant ya ngërëm yi ñu ngi ko yeesal ci moom di ko ñaanal li ñu ko daan ñaanal mooy ndimbalu suñu borom Cheikh Sidi Makhtar moo ko daan ñaanal d'accord soo amee ndimbal rek am lépp ndax soo xasee am ndimbal loo song di nga ko daanu daanal loolu song dina daanu kon monsieur le préfet loolu mooy li nga xam ne tënkoon nañ ko ci kayit bi lépp lu ci fàtte xëy na bu ñëwee comité bi dinañ ci dellu ci incha allah jërëjëf. di waajal màggalu euh, Mbacke Kajoor sëñ bi ñëwaat na léegi ci li ko waral te kaddu yu am solo te di màggal gi nga xam ni màggalu bañum aajol moo tax li ci administration bi def euh, nag jàpp na ni da koo defal boppam jàpp nañu itam ku ci nekk individuellement pris. que yi loo ci def rek ci yow lay dellu donc nag moo tax taxawaay boobu la ñuy am waxtaan nañu nag euh, point yi nga xam ni daan nañ ko fi waxtaane ginnaaw bu ñu fi jógee ci CDD bi dinañ dem fële ci Louga def fa CRD incha allah ci kanamu gouverneur li ñu fi wax ci engagement ci service départemental dinañ ko fa engagé waat waaye boole ci service régionaux yi fa nekk li ma leen fi waxal ñoom dinañ ko waxaatal seen bopp ci table ji incha allah. donc nag bi fi jógee incha allah dinañ ñu accordé ak sëñ bi ñu seet date bi nga xam ni moom moo ñu ñu arrangé ñëpp ñu jàpp ci datu CRD bi incha allah euh, taxaw ci kanamu gouverneur fële ci Louga def euh, CRD buñ ci pare rek incha allah di ñaan suñu borom yàlla may ñu ñu egg si bis bi jàmm te ñu tal ko bépp engagement bi ñu fi wax rek ñu mën ko mottali te yàlla dolli ñu kattan ba lépp li nga xamante ni yéene nañ ko yàlla may ñuy def lu ko incha allah jërë ngeen jëf